ملكية حلى آدمي خلفة ملكية mbokk julit yi mbokk talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi noo ngi fii ci pencum Thiénaba ku wax Thiénaba tudd maam Serigne Thiénaba Ahmadou Ndack Seck radiyallahu taala anhu waaye ku wax Thiénaba maam Amari Ndack Seck di nga wax njabootam ga tey nag tey fi tey ki xewle moo di Tafsir Mamadika Seck ak doomam ya rahmatullahi alayhi sëriñ Ousseynou Khoudia sek noo ngi toog ak xalifa bi ci ndigalu kilifaam yëpp dale ko ci xalifa général ba ci suuf feggoo ak rakam rakkam dëgmal si bis bu rëy bisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te moo di bisu sëriñ Ousseynou Khoudia Seck nekkoon di juróomeelu xalifa maam sëriñ Thiénaba Ahmadou Ndak ñu fas yéene ko def ren samedi ñetti fan ci mois de février 2024 ci place publique bi nekk ci Thiénaba loolu tax na ba ay ndaw tukkee ci dëkk bi bàyyi ci ngañ sar kan mooy ngañ sar alhaaji ngañ demba sar di sët ci tafsir mamma dikka sek wala setat di sët ci bay usaynu khuja sek borom bisbi jëm ci ci kan xalifaam te moy seri momadou sek roqaya lan mo xew alhaaji ngañ sar wax ni ki di xewle te moy seri momadou sek roqaya sama nijaay la ci askanu maam Serigne Cene ba Ahmadou Ndak loo tax na ba moom Serigne Ngagne wax ni ñeewul kenn ci nijaay ndax Serigne Mamadou sekk Roqe nijaayam la te mat na ko nijaay sëkk mu bëgg ko lool fonk ko ngir itteem ci diine ci ngir itteem ci tariixa maam Serigne Cene ba waaye ngir itteem itam ci biir ba loolu tax na ba moom ci boppam mu warlul ko at mu nekk mu wax ni olof njaay nee sot domp ci sot la bokk kon lii mu fas yéene dégmal mu bëgg cee somp boole ko ci xeex bi te mooy sot yàlla yàlla àggaleel ko bëgg-bëggam yëpp ci kaw loolu nag mu jël teranga yu toll ni yam fi daan andi wala yu ko ëpp warlul na ko woon gàmmu gu jot mu yëkkati mbub mi nga xam ne lay sol ci cérémonie ba jox ko ko ngir jëmmi yàlla ak rasulillahi ak bisu sëriñ Ousseynou sek Seck waaye akook matam moom sëriñ Mamadou Seck Roqeya Alaaji Demba Sarr wax ni ren nag ku yokkul yaa dina ci dolli lu demee nii dana ci boole ñetti saakuy ceeb ak fukki keesi boisson ak fukki pakkati ndoxu butéel ak bidon diwlin vingt litres jàppale ko ko ci bis bi ak leneen lu ko yàlla wërsëgale lii kàddu la yu tukkee ci alhaji Demba Sarr jëm ci nijaayam te mooy Serigne Mouhamadou Seck Roqaya nii nga xam ne nag nii la ko koy defale ñëpp defal na ko ko moom mii tey dafa ayle waaye defal na ko ñeneen avant lii te dina ko defal ñeneen ci jamono yi ñu jëm ndegam soob na yàlla suñu borom subhaanahu kon duñ def rek lu dul wax leen ñi nga xam ni nag ñoo fekkee teranga ji bokk na Serigne Moussa sek Serigne Moussa Seck mooy xalifa maam buubu Seck di liggéeykat bu mag bu jëm ba jël retraite ñun fii ci jataay bi fegoog Baye Ibrahima Dieng ak Baye Abdou kan di mag ñi nga xam ñoy wétili Serigne Modou sek ak Serigne Babacar Ba ak Baye Papa kan ak ñom Serigne tiontal ak ñi ñewon te jotaay bi jotu leen fay fek kon bala may sori ah, nu jox kaddu gi Serigne momadou sek Roqaya mu delloo njukkal ak Souleymane Serigne Souleymane sek mu baye taala xaar di mbokk ci Ngagne Sarr Baye momadou sek li la sa jarbal waxon ni bu nu nan la ko wax aoudu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yal nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax euh, sëriñ Mor jërëjëf di wax sunu bokk yi nga xam noonu ñoom lañ ko soqal ñu toog parce que su Moussa jageen jëf di wax itam sëriñ Demba Sarr jaajëf yàlla subhaanahu wa moo dogal li mu dogal nu bokk ko ci bokk séq ko ci kóllëre jàpp naa ni bu ñu nee kuy kuy ngañ Sarr rek bu ñu tëddee suñu Bakar Sarr dooni imaam ci jàkk ji nu jumaa ji jàkkaar lool ak sunu mag ju baax ji wéy juróom di soxna Xadi Sekk kon mu am teraanga ci dëkk bi du yéeme waaye yëpp mu teerle fi du yéeme ndax Ceenaba gii nu ne tey bakkan bi fi gëj jëkk ganee àdduna mooy maamam Yaasin Sekk mujj soxna Ramata mu jur soxna Xadi Sàkk mu jur ko kon teraanga dëkk bi noo ko bokk ci saa rek ci baatin maa ngi koy remercier nag di ko delloo njukkal di ko sant gërëm di ko ñaanal yàlla yal yàlla a guddal fanam yal na yàlla dolli wéram di siyaar it nag ñu ko bokkal ñëpp di ko tàmbalee ci sunu kilifa nun ñëpp muy bàyyi sëñ Assane Seck mi nga xam ni jotaay bi mag ñi toogoon moom moo ko toogee yal ko yàlla yàggal te di dolli ko barke. cër bi mu ko joxee té nu bokk cër bi donc ci gëreem diko sant ndax teraanga la bo xey ñun ñëpp nako bokk na défar ko ci jamm dafa ko sutu dafa ko ci di saar bokki bokk yépp at mu jot mu yëkëti teraanga yët ma muy yéré ma diko sol ci bis ba tey ji mu ci bolé loolu ma ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla yàlla jamm te boole di leen sant yeen ñu ko tek seen loxo di leen gëreem di ñaan yalla yagal seen taxaway loolu seen sutura ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu nag dañoo munta fay askan wi nu yàlla boole ndax dañoo baax rek te bëggunu di jël ay tiraanga dina ko jox dëkk bi it mel noonu ci nun kon nun suñu cant daa laaj dëkk bi yëpp sant leen ñaana leen yàlla subhanahu wa taala yan doolu seen jàmm ak seen yiw fii ma toog mbu mii ma sol sëriñ Jibi Seck moo ko lem yónnee ma te xam na ni ñàkk yére taxul mu def ngay saa lii mu def xam na ni ñàkk ko taxul mu def ko daa xam ne noo ko bokk ñu jël teraanga yooyu dinu ko jox yal na yàlla barkeel la leen ñoom ñëpp te ku ci ne rek seq na ma ak yow ay teraanga yoo xam ni ci yow la bàyyi ko maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ñaan bis bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm te lépp luñ ca ñaan yàlla ko yàlla nangu donc duppee tey ren sunu maam Tafsir Madické eh, yàlla mi nga xam ne mooy barkeel yàlla barkeel yaan yàlla doolu nu yiw réew mi fi mu toll ci yëngu-yëngu yàlla mi nga xam ne mooy seddal yàlla na ko yàlla seral téman ak jàmm ñu seq jàmm ci barke yonent saa salaam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Momadou Seck Rokhaya di xalif bu sëriñ Ousseynou Khoudia Seck sëriñ Thiénaba euh, El Hadj Ibrahima Gueye euh, gis nga tey jataay bi xew tey ci pencum Thiénaba euh, nga fekkee ci lu bari di ko taqoog El Hadj waaw noo gisee bis bi tey yow. Alaaji Moor ngi sant yàlla bu baax subhaanahu wa di julli ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu bokki julli di fi toog yëpp. dalee nag ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy borom dëkk bi Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Assane Seck ak ñim ko séqal ñëpp waaye dalee ko egg nag ci ki nga xam ne mooy borom bis bi tey di alhaaji Serigne Mouhamadou Rokhaya Seck nekk xalifa Mama Dikke yal na yàgg lool Seck Euh, te ànd ak wér toog fi nag ci waxtu wu nekk ci moom di jàmmanteeg moom am moom jàmm ak sutura ak teraanga rek kon moor nu tagg yonant bi nun euh, ta euh, kee ko ci bis bi loola walina yont yàlla mamadu wa kenn du yoonal ba njool ma kalaqaka sama laahu siyaadata fil asal borom li waawul hamdi leex ma dawal isaana fil xawli wal amal fa lillaahi ma asda wa lillaahi ma basal simaalul yataame wal masaakin lam yasal Mamadou Moustapha baaxi baay baaxi maam baaxi àndandoo

moo jël lii teg ko ci loxoom na ko ñaanal mu man ko ay at yu bëree bëri ci kanam mbokk yi kon mu ngoog lii lañ leen jëlee woon ci ëttu maam Serigne Thiénaba ci kër Serigne Ousseynou Khoudia Seck xula aadamiyin xila fatun malakiyatun